fukki simila ak juróom moo toftalu ci benn waxtu. xibaar yi bitim réew. yaa xadi salaamaaleykum. waaleykum salaam Aj Mansour. faxas naa samay nopp te laal poids ni ko wolof di waxee 533 journalistes la ñu tëj ci àdduna bi kaso. waaw ci atum euh, kaso daa bon. salama min ci atuma ren gi lolé kon mën nañu wax gulet buñu ko natablé ak lim gañu amon daaw lu wésu ñeen fuk ak lu top dal dinañu ci rek téggu ndax daaw ñi ngi amon ñeenti témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ci lim ko xamantene ñu ngi won kasso muy bilan bu mujju bo xamantene ni reporter sans frontières moko dal di teunk ci atuma ren gi fessel ko kon na ci ta bay tay ji rapport na ci juroom fuk ak juroom ñaar ci atuma ren gi yaa dañuy wax léegi ci RDC lu néew néew foofa juróom fukki nit ak juróom rey nañu leen wala dee nañu ci inondation inondation ay inondation yu métti inondation xanaa moom euh, ñoom ak seen taw amul nawet ak inondation yu métti daal moo fa daal di am et puis ci Kinshasa nag te kooku waa Kinshasa euh, bila ma ci àllarbay tey ji Hadj Mansour lii moo gënoon fas ci xibaar soxal bi ci réew jaajëfal naa la yaa Khady Diouf ñu ubbi tës ngi de ji dafa bëggoon namp coro jàmbur xale bu góor bi ko du ci dal mu daal di koy rendi ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm tey yendoog jàmm ñu ngi lay jaajëfal Mansour la ci wëndoo jaa ngeen jëf yéen te mbokk yi ci ànd bekk FM xibaaru bu jéggi jeex na yéen leen ak